salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum waa àdduna euh, maa ngi leen di nuyu man Dior Mbaye di nuyu waa Sénégal di nuyu seen internet yëpp ñi leen di suivre waaw di nuyu àddina kontaan naa trop di nuyu sama sama doom ndey ma toogal ni <laughs> di xàppi kol crési jaajëf asalaamaaleykum waa Sénégal euh, man la yaa gisee maa ngi leen nuyu bu baax euh, man nag tey sama kër waa sama waa kër ñoo ma seet si Sénégal sama sœur bii di Mina Xatab ñu yàgg lool mu nekk sama xarit nekk sama doom day nekk nit ku baax a baax mu taxaw ma si côté yëpp donc tey plaisir la ma dalal ko fii dalal ak jàmm ah yegg si ak jàmm si suñu résidence ñu tàmbali waxtaan bi nuyu ma la. El Malick moom nuyu ko moom. <laughs> kontaan naa déjà ci dana leen mais mm-hmm. kontaan naa aussi ci reconnaissance bi mm-hmm. moom fépp fu ñu mënti dajee mm-hmm. noonu lay def ndeysaan yàgg macha allah joor yow it allah su ma waxee rek damay bañ interview bi yàq donc maa leen di nuyu di kontaan dalal leen mais di bëggoon xam aussi euh, ci village effort bi euh, critère la woon lan la demee ba ñu choisir leen ngeen bokk ci li nga xam ne moom mooy projet effort bi waaw xëy na nag euh, loolu moom euh, ki créer effort moo la ciy gën a tontu en tout cas ñun lu ñu xam mooy ku ci ne toog nga ñu woolax la te biñ la woowee yow nga déglu ñu tegal la projet bi da nga ko daal di rafetlu loolu moo tax mais man vraiment critère bi mu ko tàmmee tànnee nag xaw ma ban la mais wax dëgg yàlla fayirul ci mission boobu noonu. waaw man bi ñu ma woowee euh, ni ma dañu bëgg a boole diis jigéen ci benn kër dama def taj toog xool parce que Sénégal tam la ñu ne. Mhm. voilà nga war a bàyyi sa njaboot bàyyi sa boroom kër. dëggu ci kër war faa def fukki fan xamoo yàgg ay góor a fay fanaan xamoo yàgg nan nga fay dëkkee xamoo ñan dañ lay booleel loolu dama def tey léegi nag mais nag dal laajte waat lan la lu xew ñu xamal ñu ne dafa am album bu ñu war a def te pour album bi gaaw 10 jour rek la ñu am il faut ñu def résidence mu gën a gaaw parce que bu ñu bàyyee ku nekk di xëy di ñëw embouteillage yeeg dëkk beeg Dakar ak yooyu il faut ñu def résidence bi ñu mën a nekk saafonte xol yi xol yi génn et tout ça maanaam ñu ñu bokk boole lépp pour album bi gën a mën a ànd ak xol ak yéene léegi bi ñu ma waxee nag ñi may àndal sama xel gën a daal. waaw ndax dafa nekk ñoom ñëpp koo xam ku ci nekk dafa am foo xamante ni man toll nga ma fa waaw bi ñu waxee tamit euh, but bi man it ma gën a adhéré sama xel gën a dal loolu moom fi boole tey. Euh, bon comme Dior li mu wax rek. critère bi moom peut-être Moustapha moo gën a approprié pour tontu si euh, mais xam nañ ne daal fayirul mission am comme John mu ko waxee parce que euh, yàlla yàlla mooy dogal ay affaire en fait man pour man sax du sax si Moustapha yàlla moo waxoon ni ñun ñëpp dañuy boole si benn kër ñun ñëpp liggéey bi ñuy def dafa am ñu ci dimbali seen wërsëg daf leen war a fekk foofu. tu vois donc euh, tey ma rafetlu ko bu baax parce que li may wax si interview yëpp ñun ñëpp dañoo fiilante balaa lii di am. moo tax bu ñu ñëwee bokk résidence bi dañoo def liggéey bi vite fait kontaan fooree ku nekk apprécier liggéey moromam et puis naturellement donc voilà noon la demee quoi donc euh, voilà ñuy ñaan ñaanal ñu rek. jiw yi nag xam nga tey génn ngeen ngeen nar a dëkk ci fukki fan ci benn résidence Mia ku ko xam-xam ne ne daawul génn. Mhm. tout le temps mu ngi ci ci kër gi si joo dem tàmmul nekk ak ay nit yu bëri mhm. donc yow déjà c'est particulier ak ak ñeneen ñi mhm. duo yi aussi daawoo bëri loo ko doon def donc je pense que di nga jële sa sa carrière solo mhm. commencé def duo def ak Wally euh, euh, récemment ak Adviser donc yow sa kaam nan la demee woon nga nar a génn pour la première fois def ay duo mais pour la première fois aussi dëkk foo xam ne nekkul sa kër ak ay yeneen nit d'accord loolu dinaa sawar tontu lu tax mu yomb nii parce que j'ai été éclaireuse may nekk xale dama daan dem ay camp formation fa ay mille personnes nekk ñiy toog di jox ay soom bi ñuy naan fonde ñuy naan boo toggul correctement ñu sotti suuf nga lekk ko par force tu donc formation boobu noonu amaana moo tax tey ma mën a habitué wu te euh, bu may ñëw amuma si benn ñaaw njott parce que man ni muy man lay jàpp ni noonu la ñëpp mel bien vrai que euh, du nit ki waroo waroo mel noonu tout le temps mais. li ma xalaat et loolu laa fi fekk man sama sama ñi mel ni man laa fi fekk moo tax ma mën a adhéré donc c' était pas difficile parce que amoon naa habitude bi autant avant may euh, may euh, may entamé sama carrière sérieusement amoon naa habitude dem ay formation camp de formation ay un mois de camp de formation et tout parce que j' étais éclaireuse moo tax peut être mu mu yomb ma nii rencontre yooyu <laughs> macha allah euh, village villa bi wax dëgg yàlla expérience bu ndaw bu ñu fi dund rek yokkute la ci ñun. Mhm. parce que képp ku ñu ci ku ñu fi seet si tamit wax nga ñu jàngal nga ñu loo xamante ni peut-être xamuñu ko woon wala buñ ko xamoon yokk nga ñu donc kon ay expérience yu positif rek lañ ci dund xëy na nag concept bi li mu ko bëggee woon mooy ñun ñu waxtaan ak ñun gën ñu sotti pour ñu mën a xam li ñuy def ci biir album bi tey ndaanaan yi fi jaar yëpp bu fekkee reprendre ñu seeni way sax reprendre nañ seen way en quelque sorte parce que ci seen ay jàngale ci la ñuy sukkandiku pour mën a gën a euh, taaral album bi donc ci loolu la ñu nekk xëy na loolu lañ ci jublu te vraiment ay kilifa yu mag yoo fi ñëw ku ci nekk partagé ñun si seen expérience vraiment mu nekk loo xamante ni man dama koy rafetlu. ku nekk aussi ñu jàngat si yow dara lu particulier. Mhm. Mhm. Mhm. mais peut-être am si yeneen chanson boo xam ne yaa ngi ci toujours maabu ay gidelam. ce sont des titres yoo xam ne c'est en pulaar. ah nga woyoon ko ak noté. aussi ñu bëri dañ ko xamee ci benn musique mais ci village école bi ñu gis ko. musuma xam ne moom. elle peut chanter uh-huh. waaw mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ñu bëri ñu ngi koy doog a ci li nga xam ne ne moom mooy village FM dafa am lu bëri loo dencoon bëgg ko génnee <laughs> <laughs> waaw soo allah euh, villa bi euh, dafa yee lu bari. parce que man ku ma xam-xam ni ci dem naa euh, style boobu laa wayee mais nag day nëbbatu da ngay dem ba euh, da ngay nekk ci yeneen mais euh, bi ma bi ñu ñëwee ci village bi villa bi ku ci nekk dafa am lu nelawoon ci yow nga yeewaat ko voilà parce que talentam su nekkul si yow munoo ko forcer munoo xëy deux jours comme dix jours de de de résidence rek nga mën ci lenn li dafay gaaw surtout en matière de voca voix mais tey da ngay yee loo xamante ni da doon nelaw ci yow wala da nga ko négligé woon en fait c' ça parce que man euh, Mia daf may impressionné parce que keroog dañuy woy day jékki-jékki yëkkati ci ngéwal te man xaw ma ne woon ni moom euh, elle pouvait faire ça géwal la ndekete kii di tu couleur léegi man loolu jaaxal na <laughs> ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp Dieyna euh, Balde elle m'a impressionné parce que naa Balde d'habitude même bu ñu daan way en ci biir nit moom dafa mën a way mais des fois Euh, day jël temps wam wala doo comprendre moom moo xam li tax des fois muy kii mais démb pour la première fois man ma gis ko mbooloo yëpp toog moom mooy seule première personne bi nga xamante ni dafa yëkkati baatam woy donc loolu mu neex ma ay ndaanaan yu denc yu oh, yu garaaw yoo xamante ni uh-huh. ba pare yamul ci ndaanaan boobu may profité di wax ci Mia uh-huh. parce que Mia dafa nekk ni koo xamante ni tout le temps daf lay conseiller ci sa style vestimentaire ci sa façon de parler dafa am moom ay qualité yu denc yoo xam ne macha allah après peut-être xëy na nañ ko gën a découvrir ak ci yeneen ma di ko ci remercier ndax loolu tam ñàkk ki ñaan la. Mhm. nga jàkkaarloog sa moroomu artiste di waxtaan ak moom. xam nga di ko waxaat ci estime de soi ci comment se comporter comment di jàngalaate lu bari loolu noonu c'est important man dama ko ci gënaat jàpp dama ko ci gënaat naw voilà vraiment euh, tey pour une fois ma mais elle est par parmi temps d'autres ñoom ñëpp tey damay taxaw ku wax man la Kya mooy sama coach léegi mm-hmm. waaw à part sama coach seen set butu mais ñëpp mm-hmm. vraiment mi ngi def lu rëy. Mm-hmm. mais ñu gis dernier euh, featuring ak advisor mooy bi mu remercié noonu euh, ak Njeexeen mu nekk texte boo xam ne si cent pour cent pulaar mm. c'est vrai que tu es Haalpulaar mm-hmm. mais doo wax pulaar lu bëri mm-hmm. donc ñu gis nga woy ko ak aussi style bi nga xam ne ba ci côté fecc bi si sa la vie est belle gis uh-huh. nañu aussi nga def quelques chorégraphes mm-hmm. te ñu bëri xamoon nañ souvent da ngay woy doo fecc bii mhm. <laughs> comme may wax tout le temps rek artiste da nga am direction euh, artiste boo amee direction rek euh, euh, sa liggéey sa liggéey dafay yomb sa liggéey da nga koy def normalement mhm. alors man j'ai des j'ai des gens qui me conseillent bu woon direction bu may jaar ci côté musique surtout mais côté scène tu vois un peu donc loolu moo tax peut-être amaana lu doon nelaw la si man mu yeewu parce que euh, artiste boo ko bëggee nekk bëgg a def carrière il faut nga ànd ak lu bëri nga ànd ak style da ngay ànd ak fit da ngay ànd ak feeling. Mhm. tu comprends donc loolu boo ko amul rek le talent seulement ne suffit pas il faut il faut tous tous ces bagages pour nga mën a pour nga mën ci génn. donc noonu la demee euh, Art Ndiakhate tamit ma def ko may remercier advisor bu baax a baax ci euh, ci possibilité bu ma may et ci encouragement bi pousse bi et tout donc di remercier kii nii pulaar yëpp. Sénégal yëpp ah ci euh, ci jàppale bi ci support bi di leen wax nag ah yam na yeneen yuy ñëw de yu doy waar. <laughs> may wax aussi may wax waaw may wax aussi si Dior merci Dior joor en fait ah fu sori fu kenn mësul dem <laughs> fu kenn mësul dem laa koy yóbbu alors may wax si joor euh, li mu wax si man moo nekk si moom euh, da ngay woy sax def erreur mu ne la sàndeekul nii loolu ndaanaan moo ko mën ndaanaan dëgg moo ko mën ndaanaan dëgg du soxor. day gis day gis morom artisam def loo xamante lii mu ne mu ne la jaaral nii defal nii defal nii donc kii xol bu rafet moo tax peut-être mu yegsi fi mu yegsi te ñun ñëpp villa bi ñëpp am xol yu nice ñun ñun ñëpp en fait dañu on man daal mosumaa gis lii. am souvent boo nekkee en solo. Mhm. day métti ci yow. Mhm. te dafa jong ma macha allah xam naa li ma koy wax ma ko sañ moom moo sañ dafa la neex dafa jong ma mhm. te tey boo nekkee aussi yow kese tey su nekkee da nga da nga da nga nekk ak sa borom kër wala nga am jëkkër tey peut-être. dañ lay jox plus de respect mën nga aussi bañ a am jëkkër nga am sa caractère bopp tamit. nit ñi dañ lay jox respect. donc lu ma la doon laaj rek. mooy. est-ce que fii quelque temps dinañ gis Mia nekk madame mhm. parce que tamit madame jàpp na la trop mhm. sa dégagement mhm. nga xam ne ne moom la la société bi di jox ndax fii instant bii nii am na ñoo xam ne ne bu ñu rek ba amatuñ borom kër bunt yu bëri day tijji ko nekk yow tëj nga mais képp sañul woon sax day bëgg a sañ ñëw dugg ñëpp ay bëgg a loolu macha allah da ngay jékk Sénégal ñëpp ngi <laughs> alors yow yow moom Mina yaa yaa ma sañ poser question bi yow dinaa la si répondre bu doon ñeneen la du ma leen sax faale. alors tu me je pense que ci tu me connais assez. pour pour nga pour nga mën pour ma mën si wax en fait. Euh, lépp si côté éducation la. jigéen nga am jëkkër ñàkk am jëkkër. am na lu ñu def si yow. nit du taxaw manqué la de respect. nit du taxaw wax la lum la war wax. yow sa bopp doo ñàkk fula doo ñàkk fayda di nga xam li ngay def di nga xam fooy teg sa tànk jëkkër nag suñu borom moo ko moo ko yor bu ñëwee dinaa dem su ñëwul duma ko uti damay xaar ba mu ñëw incha allahu rabbi ñoor <laughs> yaa ngi ree de <laughs> su ñëwee moom ah wax dëgg yàlla du ma puus de parce que jigéen taaram sëy la tu su ñëwee dinaa dem sëy ba mu neex di ñaan ñu ñaanal ma bu ñëwul nag ñu toog xaar ba mu ñëw du noonu jeex na <laughs> waaw nee nañu tàllal mu ñaanal ma tonton nee nañu dañuy ñaanal waaw nañu <laughs> ñu ngi leen ngeen jëf waa Sénégal ñu ngi leen di remercier yéen tamit waaw jaa ngeen jëf. en tout cas merci beaucoup. <laughs> merci Mina di la di la remercier di remercier waa Sénégal yëpp. di remercier waa Sénégal di leen wax effort bi nag du ñun kese ñoo ko moom effort effort yu ñëpp la donc euh, euh, li ñu ci jublu c'est pour euh, c'est pour aider les femmes qui sont dans des situations difficiles et ñiy ñaan album bi bis bu génnee ñoom ñëpp ñu ñu ñu jënd ko pour képp benn jigéen bu jënd album dimbali nga sa beneen mu jigéen benn góor bu jënd album dimbali nga sa benn sa benn xarit wala sa benn rakk ci ci mu génn situation bu mu nekk donc ma leen di wax. ni euh, euh, ñu jàppoo en masse jàppale effort ndax effort effort du Sénégal la c'est pour vraiment le développement du euh, du Sénégal di leen remercier bu baax salaamaaleykum